sëriñ bi dañu sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéene nañ ko fas yéene liggéey liggéey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 di jiital ci nuyoo bi Cheikh Abdoul Ahad Mbacké di ko ñaan yàlla yàlla na ko yàlla yàgg ci suñu kanam bu baax a baax te li mu liggéeyal maam ja maam Cheikh Balla Thioro Mbacké ci liggéeyu Xaadim Rasul bi yàlla defal ko ci lu ko njortam te nu ànd ko ak moom barke Cheikh Xaadim waaye tamit nuyoo boobu ñu di ko teg ci loxoom rek di ko ñaan rek. mu jàllaleel ñu ko ci mboolem mbokk yi nga xam ne yii ñoom la yàlla dogal nu bokk liggéey bu sell bii nga xam ne bii liggéey xaadimu rasul la ñu bokk ko muy góor yi ak jigéen ñi ñu di leen niiw di leen ziyaare di leen ndokkeel bu baax a baax di ñaan yàlla subhanahu wa taala mu doon ñoo defal tawfiix ba liggéey bi mu bi mu nu baaxee ci coobareem ak yërmandim ak ngëneelam Euh, ba nekk ci di ci nab nabi di ci yëngutu euh, mu dolli ñu ci dimbali ba euh, liggéey bi ñu am ci lu kaw suñ njor bi jaay seydina muhammad sallallahu alayhi wa kon tey ñuy jéem a ñëwaat ci fatwa bi rek te mooy tontu laaj yi nga xam ne yii moom lañu am tey defe na mbokk mi di suñu mag ji sëriñ Ndiir moo fi yónnee laaj nga xam ni moom lañ fi ama jot jot am tey eh, ñu koy ndokkeel bu baax di ko ziyaare di ko ñaanal yàlla moom itam yàlla gën koo dëgëral bu baax a baax wax dëgg yàlla ab royukaay la boo xam ne bii moom saa su sunu xel demee ci moom rek dañ ci am yokk bu baax a baax rawatina nag suñu déggoo ay kàddoom waaye rawatina nag suñu demee ba ja jàkkaarloo ak jëmm ji kon ñoo ngi koy ziyaar bu baax a baax. di ko ñaanal mbokk mboole mbokk yi nekk biti réew yépp yàlla gën leen a defal tawféex ak xewal yu kowe kowe seen njort ba ñu mën a dellu si waat fii ci sunu réew mii ba ñu gën a mën a jàppoo gën a liggéey sëriñ bi baax a baax ñoo koy ñaanal mbokk yépp yépp nekk bitim réew ak yi nag yàlla may nu lu nu liggéeyal ak xaadimu rasul kon sëriñ Ndiir dafay laaj euh, imaamatul ajizi anil wuqufi liman lam yuxsinu asalaata sëriñ day laaj ne ay nit a ngi nii yoo xam ne day xam na seenam njàng demewut noona ba daanaka julli la ca war ñoom mënuñu ko ca ponk ya masalan waaye am nañu jëmm ju xam ne moom ku mën a jiite wax dëgg yàlla xam na julli nu ñu koy jullee ca ponk yag yépp muy laaj ne kooku nga xam ne kii mën na jàng na mën naa jiite waaye ñee ñoom seenam njàng demewut noona ba daanaka seen ak julli buñ ca yàqee dara sax duñ ko mën a defaraat mu ne kooku leen di jiite su amee ngàntal mënta taxaw ngir ndax am na ngàntal lu ko gàllankoor dal ba mënta taxaw buy jiite ndax dinañ ko may mu jiite ñooñu nga xam ne ñii noonu la ñu mel ci wàllu ñàkk mën a julli waaw loolu lañ ko ci doon dañ ko naan euh, tilkal imaamatu jaizatun wal iqtidaaw bihi saxiixun dañ ko naan ku mel noonu ak ñu mel noonu bu nekkee ñoom euh, mën na leen a jiite may nañ ko mu di leen jiite waaye tamit euh, roy ci moom maanaam topp ci moom mu jiite la ne ne loolu itam euh, lu wér la lu mën a nekk la jëm moom jàng na mën naa lijjanti julli ga muy am na benn gàllankoor booy mën a am na jafe-jafe taxaw ba di toog waaye ñëw yi jiite tamit ñoom am nañu gàllankoor ndax ñoom daanaka julli gi buñ ko julli na mu war a demee dëgg-dëgg duñ ko na mën a defe daal ne leen dina leen kooku dina leen mën a jiite waaye kon ñu xool bu leen di jiite nan la julli ga di war a demee ñu mel loolu seen julli gi ni muy demee mooy dañ ciy tegtaloo ci xadis bi ma bëgg a wax rek nga xam ne sayduna muhammad sallallahu alayhi wa moo ko wax xaala nabiyu sallallahu alayhi wa sallam innama imaamu li yu tamma bihi falaa taxtalifu alayhi Seydina Muhammad ne ne imaam daal dañ koy def ngir mu seet ñoo xam ne ñi mën na leen a jiite mu di leen jiite kon ne ne bu ngeen amee imaam daal bu leen di woote ak moom daal di wax ne fa iza rakaa farkaaw kon seen imaam bu leen jiitee bu rukkooxee rukkoox leen comme moom wa ida xaala samia allahu liman xamidahu fa xuulu rabbana walaka alhamdu su seen ima waxee samia li liman xamidahu yéen ñi topp ci moom it ngeen ne rabbana walaka alhamdu wa ida sajada fasjudu ne la su seen imam sujootee itam na ngeen sujoot ànd ak moom wa ida salla jaalisan seen imam itam bu ne dafa julli te dafa am ngantal mënta taxaw ba dafa toog di julli fa sallu juluusan ajmao na yéen itam na ngeen julli toog yéen ñëpp comme noonu ma tooge bi julli kon daal gis nga li ñu fi dégg kon mooy kooku mën naa jiite waaye nag ñamu jiite itam su boobaa kon dañuy toog comme noonu muy tooge noone ndax euh, dañ ne euh, yéene roy ak roy ci ki lay jiite dafa bokk ci ponki julli gi kon gis nga xadis bi bi mu limeeyee ba ñëw ci wàllu jotaay ci toogaay maanaam dane wa ida salla jaalisan su imam ji jullee te fekk bi muy julli dafa toog fa sallu juluusan ajmaon ne ne yéen itam na ngeen julli te toog yéen ñëpp comme na mu tooge kon daal laajam bu njëkk boobu daal dañ ko naan ñoom kooku mën na leen a jiite waaye tamit dañuy toog comme moom na mu toogee ndax ci moom la ñuy roy beneen laajam bi ci toppaat dafa jëm ci wàllu miraas day laaj ak ceeb walla nu ñuy miraase man maatan an baniina wa banaat waaw dane jigéen su fekkee ne dafa faatu bàyyi ay doom yu góor kese ak yu jigéen nan la miraasan di mel maanaam nuñ koy miraase kooku moom miraasam soxna soo xam si dafa faatu bàyyi ay doom yu góor ak doom yu jigéen moo bu fekkee ni góor a faatu bàyyi doomi góor ak doomi jigéen ñoo bokk dong nañ leen di miraase seen miraas mooy li zakari mislu xadil unsayayni maanaam ñoom doomi góor yi ak doomi jigéen yi ñoom la ñuy séddale alal ñoo koy donn ñooy moom miraas ma nañ koy miraas nag mooy bu jigéen amee benn cër góor day am ñaari cër bu fekk ni góor la itam moo faatu bàyyi noonu doom yi mel noonu noonu lañ koy miraase ñoo bokk rek euh, li zakari mithlu hazil unsayayni lay doon maanaam dañ koy séddale doomi góor yi ak yu jigéen ya waaye nag jigéen benn lay am góor am ñaar ca miraas ma noonu rek lañ koy miraase macha allah beneen laajam bi te mooy bu ñetteel bi te it fi la laaj yam tey ci day laaj xukmu imtinaa'i xiraatil masadi fi salaatil layli ne dafa am ñoo xam ne dañ ne bu ñuy julli gee la wax yaakaar naa julli guddi maanaam dañuy bañ ku ca jàng tabbat yadaa maanaam soor woowu ñu ne tabbat yadaa abi lahabin wa tabba mais daa am ñoo xam ne dañ ne kuy julli julli guddi daal defe naa eh, gee wax dañuy bañ ku ko julli loolu itam lañ ko cay tontu mooy. laa dalila lahu min alquraani wa sunnati wal ijmaai maanaam tabat ya daal dee su ko jàng ci ak julli moo xam guddi ji la wala bëccëg la loolu gisaguñu benn tegtal boo xam ne bii mën nañ ko sukkandiku ci alxuraan ne am na waaye itam gisuñu benn tegtal bu ñu gis ci sunna ne loolu am na waaye itam boroom xam-xam itam ñi jàngale fiqh ñoom ñëpp itam gisaguñu fenn fu ñu joxe ab tegtal ne loolu lu am la kon daal alxuraan d'accord ci ne tabarja daal dee su ko jàng ci guddi sunna itam d'accordu ci dajaleeg boroom xam-xam yi d'accordu ci kon loolu liñ ca mën a jàppare mooy wax jooju nekkul wax joo xam ne ji ju wér la te it defe na suñu beneen waxtaan wala ñuy def di muy at taaniisu bi kitaabaati Cheikh El Khadim ji may def léeg-léeg te mooy wéttaliku mbindam Cheikhul Khadim bind gi ma ci mujj am lii day waxal naa ko ca muy wàllu tabat yadaa mii na ko mag ñi doon jàppe bu jëkk daanaka mooy lii rek ndax euh, émission bi ma ci mujjoon a waxtaani mooy zuhuru axtaa in fi taamul yi mal quran mooy ab euh, ay njuumte yoo xam ne gis nañ ne nit ñu mag ñu jëkk ña doon nañ ko def mu doon ay njuumte yoo xam ne dañ ko doon def ci alxuraanul karim noonu naa leen euh, bokk na ca baat yooyu ñu jàng di ko soppi ci alxuraan muy hëy hëta hëy hëta ñuy soppi ñaari baat naa tudduma la tudduma la loolu njuumte gu rëy rëy waaye itam da caa bokkan tabat yadaa bi noonu nañu euh, kenn du ko jàng guddi waaye tam kenn du wéet di ko jàng loolu itam dara saxu ci nekkut amut ab tegtal euh, alxuraan ji yàlla wàcc daal mu doon téeméeri saar ak fukki saar ak ñeenti saar gisagun fenn fuñ ne saar sàngam nañ koy jàng ër sàngam waaye buñ ko jàng heure sàngam wala nañ koy jàng béréb sàngam te buñ ko jàng béréb sàngam loolu daal ñun gisaguñ ci benn tegtal boo xam ne bi mën nañ cee tegtaloo ci li nga xam ne lii fi lañ yemaguñ ci li xam kon tabar daal de su ko jàng daal ñun gisaguñu benn tegtal buy tegtale la loolu lu sax la lu am la ci fenn nag gisaguñ ko fenn nag kon daal loolu lañ ci mën a jàppaguñ yal na la yàlla doole defal taw ya bi jaay siy naw bat sallallahu alayhi wa sallam tawa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 sëriñ bi de sëkk tey ëllëg kon nag nañ ko fas yéenee nañ ko fas yéenee liggéey liggéey